barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. ndaw yi jigéen ñi góor ñi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنو وقتانو تيكم نين كتاني مودي وقتاني درجي الخليفة أبو بكر الصديق خمجيني أبو بكر موينجيل بنو خليفة خليفة moo njëkk a wuutu yonent bi aleyhi salaatu ci diine ji ak doxaliinu njaboot gi kon bu ñuy tudd ne alxulafaaw rashidun abubakar moo ci njëkk moo ñaareel ñaar ña itam maanaam ñaar ña doon gàddaay ngir kawel baatu bi yàlla kenn ka Abu Bakar la woon mbokk yi ñu xam ne waxtaanee magi diine salafu saalix mooy ñu yiw ña àndoon ak yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam waxtaanee ñooña ñoom rekk ñooy mag ndax ñoo mag ci diine te ñoo doon jëlee ca mbella mu mag ma muy alayhi salaatu wassalaam ñooñu nag waxtaanee seen mbir ma ngi mel ni waxtaanee ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam kon asxaabu rasulillah muy saxaaba yonent bi waxtaane seeni mbir daal xaw la wuutee ak waxtaane mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoom ñooy reyukaay yëjjaloon ca reyukaay bu mag bi muy alayhi salaatu wassalaam xam nga ne képp ku ñuy rey te duwuloo yonent bi aleyhi salaatu salaam ña lay roy mën nañu juum yow ma ñuy roy it mën nga juum yonent bi aleyhi salaatu salaam rekk la roy ko nekk am njub te nekkit lu mucc ci njuumte te yàlla jox ko garanti ne ku la topp rekk man yàlla la topp من أتى الرسول فقد أتى الله لولا القرآن لا موم رك لا يالله وخيت كاي بو رافيت نغا روي عليه الصلاه والسلام لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ام نين تي نتبي اب كاي وانتي دو كاي بو سامبل وايي te yenent boobu kon ñu njëkk a ci moom ba tibbee ci moom ba indil ñu ko mooy saxaaba ya ñu àndoon ak moom wante lan mooy saxaaba ulamaawul usul ñoom dañuy wax ne saxaaba mooy ku bokk dund ak yenent bi aleyhi salaatu wassalaam ci kaw àddina te nga gëm la ko yàlla yónni sawaawun gis nga jëmmam ja walla gisoo ko waaye gëm nga ab wooteem jëmee ci yàlla te ngeen bokk nekk ci kaw suuf ne nañ kooku mooy saxaaba bokkul ak saxaaba nag saxaaba gune yi nag bokkul ak boobu mooy nit ku doy waar ku doy waar ci ak bon du boobu nag saxaaba mooy compagnon les compagnons des prophètes la ñuy tuddee asxaabu rasulillah mooy ñeroyee coroyukaay bu mat bi yàlla ne bu rafet la ñooñu nag waxtaanee seeni mbir ma ne wuutewul ak waxtaane yenent bi alayhi salaatu wassalaam ndax ñoom ñoo jub ñoom ñoo jubal itam ñoo jubbanti ñoo doon roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wax ak ci jëf ñoom la yàlla xéewaloon ñu dund ak moom di jumu ci leer ak gëm yàlla am nga xam-xamam ba ñoom ñooy ñi nga xam ne yàlla mayoon na leen imaan ba bu ñu déggee wax la ca gën a rafet lañuy ñuy topp daaw ñu seet wax fi mu jóge dañ daan seet wax ji lu mu doon moo tax ulamaaw yi ne laa yucrafu alxaq bi rijaal wa yucrafu rijaal bilxaq nit ñi yaa ngi leen di xàmmee ci mën a wax dëgg ak topp ko waaye duwul ne dëgg ngay xàmmee ci nit diw a ko wax rekk dëgg la déedéet diw moo dëggu parce que wax na li yàlla wax li yonent bi wax waaw waaw kon dëgg dañ ko xamee ci nit waaye nit lañuy xamee ci dëgg saxaaba yi nag ñoom noonu la ñu jikko woon ba ku juumaat rekk ñu ne ko juum nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli na julli ci subaar wala tàkkusaan ñaari rakkaa dal di sëlmal benn saaba ne ko déedéet wàññi nga julli gi walla walla fàtte nga bu fekkoon ne ñun la dañ naan ku toll nii daal lu mu def rekk noonu la duñ ca wax dara waaye ñoom dëgg rekk lañuy topp ak kum mën doon boo jumee ñu ne la du nii dëgg googu ñu dëggu nag ba waa ji ne yonent bi wàññi nga julli gi walla fàtte nga mu ne ko ñaar yooyu dara amu ci waa ji ne ko fokk kenn ci ñaar yi am na ndax nag ñu xamale woon julli ñeenti rakka du nii nag ñu xamale woon fu ñuy wàññee julli du fii kon nag jum nga rekk waaye boo nangu ko ne fàtte nga yeneen bi ne saaba yi lu ngeen wax magu saaba yi ñoom Babacar ne ah kay ci ñaari rakkaa nga sëlmal mu dal di jóg indiwaat ñeneen ñaari rakkaa dal di sujjóot nag ndax li nga xam ne na ab sëlmal ci diggante bi loolu moo indi baabu sujjóotu sujjóoti sax wi ñi mel noonu nga xam ne ñoo ak yonent bi ci bu rek ñu ne ko du ba di wax ne bu ñu déggee wax ñoo topp la ci gën a rafet ñooñu la yàlla ne nan nan leen roy ulaika alladina hadahumullah fa bihudahum hudahum iqtade fa bihudahum iqtadi kooku suratul anam la aya 90 mbokk yi li nga xam ne mooy njëriñ di xikma ci déglu xibaar ak siira muy jikko ak jaar-jaar yi saxaaba yi la cay njariñ daal duhul dégg rekk baax ak Babacar la cay njariñ daal mooy roy lu baax la mu doon def bàyyi lu bon la mu doon wattandiku loolu lañ ci amee njariñ kon nettali gi yépp njëriñ li mooy roy yu baaxam ya yam bawoon te mu bon ñu bàyyi na mu meloon ci al imaanu billah gëm yàlla lool te dana feeñ ci waxtaan wi gëm yàlla ak abubakarin li sadiq gëm yàlla bu ko yóbbu ci mësula naan sàngara mësula sujjóotal xiram jikkoom ci na mu daan muñee ci ñu di ko lor baayam jox na ko kaas sàngara ne ko naanal mu bañ baay ji pes ko هما بوكو حافا باي بابكر موم قام لين ني موم ماغلا مو كو غود فان لا نخ في مجي بابكر يتام وايي جي كوي بابكر تي مون تي اي لور جيكوم تي ام تقوى موي رغال يال جيكوم تي جيف جو يو wante jikom ci bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam te bëgg yonent bi bëgg yàlla in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni kon ku topp yonent bi rek yàlla nga bëgg moo tax kon babakar amoon na cër ca loola daana xeñtu it ay jeexitam kon tënkal naa la ne waxtaanee ku tol ni Babacar njëriñ la mooy roy ca moom na mu meloon wante alxilaafa mooy lan yàlla waxoon na jinnee ne damay bind ci kaw suuf ku may wuutu kon xalifa mooy ku wuutu kenn rek ku wuutu kenn ku nekk rekk yaay xalifaam ay dégare nag la yemut ki ñu doon jàngal daana wax ne ah xalifa du dara magal ci sa kër baay mu ne boo xamul dara yow la kon nekk xalifa nekkul benn daraja bu ñuy ñëwee nit lañuy ñuy ñëwee nit kay mooy nekk xalifa mel ni ka xalifawu mel ni kook ci baax waaye nekk xalifa moom kooku dungóor boo magee sa kër baay rek yow waaye ba bul xam dara كون الخلافة في الإسلام برم تبارك وتعالى بميون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مجحك الدين جحك صراط المستقيم ويون وجب نوان كيتا من الدين جي ملا جخ ونغا جخك نيني موي مجوك دين جيني واتشي مجوكي أسما وخين الله jóge ci yàlla rek lañu bëgg wax amul jeneen diine juy ñëw gannaaw ga ak yonentam mooy mujjëg ak yonent ku nekk dana fi woote ne yàllaa ko yónni waaye gannaaw seydina muhammad yàlla yónneetul kenn ndax yàlla ku muy yónni jibril mooy ñëw wàccee ci yow téere ku woote te yónnent rek laaj ko téereem ba xam ana ban téere la yàlla wàccee ci moom bu demoon bee ñeme yàlla ba indi la ay asiyaal mulafaqa boyit nga seet ba xam ndax la mu indi téere bi yàlla la am déet da fekk ne du moom jibril daal gëj naa indi waxyu wàcc fii indi téere ma nga gëj wàcc atam fukk ak benn ca gàddaay ga ba mu wàccee indi aaya buñ naan wattaqu yawman turjacuuna fihi ila allah mu nekk ci suratul baqara boobu la mujj indi comme aaya mu daldi ne sa borom ne na aaya bi na ko dugal ci biir suratul baqara ci place sàngam kon tartibul aayaat yépp ci yàlla la jóge woon boobaak léegi nag jibril ñëwaatut indi indil kenn téere kon yónneetuñu kenn nee na dama laa yónni nga mottali mission bi jëm ci yàlla bu keneen ñëwee kon dootul am sens la yàlla waxoon day day dàqu bu ko yónnee nag jox ko diine ju mujj muy diinul xaatim jox ko téere boo xam ne xaatim la téere boo xam ne muhaymin ala al kutubi samawiyati al uxra téere bi yushrifu wa yajmau wa yashmulu jami ma fi al kutub al al الأخرى lépp lu nekkoon ci yeneen téere yi mu ngi ci am lu mu indi te yeneen téere yi indiwuñu koon kon nag bu yónnee yonent bi jox ko lu mel nii te nag yow lay mujj yónni ah mu ne nag lii ma la yónni ku ko topp mucc ku jéng nga walis ko alku alku mooy dem safara te ne na ko sa diine ji am na sharia muy yoon wu ñuy jëfandikoo ci loi ne na yoon la wu buñ ci jaaree individu bi dina ci am jàmm société bi dina ci am jàmm loola ci àddina ak àllaaxira kon nag kiñ jox mission boobu nu yenente googu bu ko boromam dellooyee ca rafiqul aala ah war na fi am ku fi nekk di leeral loolu wuutu ko ca loola ku ko wuutu ci kawel baatu yàlla yooyu ku ko wuutee wuutu ci indi fi maando teg yemale ba ku dëgër keeg ku lompoñ ki ku tedd keeg ku doyadi ki ci kanam dëgg ñoom ñépp ñu yem fa kon loolu mooy xalifa ci wattu diine jile ak doxal mbirum àddina yu doomaadama yi ñu ngi cay dund al umma al islaamiya muy nation islamique bu ñu ko waxee mooy bu ñu yónnee Muhammad bi pencum yàlla loolu mooy umma bi ñoom nag gannaaw bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam génnee jamono ñoom ñëpp dañoo dajee ci ne war nañu taxawal kenn wuutu yenent bi ci mbir yii di doxal nag lépp li fi war a dox umma bi yépp daldi ci d'accord kenn génnut ca loola ñëpp topp kooka ba mu des tuuti ñu tuuti ñoo génnoon ci topp gi ñu tuddee al xawaarij mooy ñu génn ci topp xalifa bi ñu ci topp mooy al mu'tazila mooy borom mazahibul fikriye yu bari yooyu xalsi naa ñëw ca kanam mu'tazila daal ak xawaarij ñoom rek ñoo ne xalifa daal c'est pas nécessaire mun na ñàkk mun na ñàkk mën nañu doylu walis ko ne nañ daal bu fekkee xeet wi yiw nañ baax nañ bu xeet wi jubee daal di attee alkitaab ak sunna dootuñ aajo xalifa daanaka condamné nañ seen bopp mais loolu amul nag moo tax kon nag foog ñu ajoo kuy wutu yenent bi ci dëgg gile di ko doxal mbokk yi ak lu mën a am nag ñaari xalifa moo munta am ci lislaam lislaam du ko nangu waxtu wu ñu amee ñaari xalifa reet dëngoo ŋaayoo mbiccoo mbaaloo xëccoo daldi am kon nag foog jullit ñi war benn xalifa ndax bu ñu ëppee kenn la cay juddoo ci xëccoo ak bañante ak teqalikoo njëriñi lislaam nekku ca ak lorama ci ne kon umma bi dañu war a tànn koo xam ne yiw na yéwén na ci wàllu xam-xam wante ci wàllu jikko pour mën a nekk xalifab jullit mbokk yi masala bi muy masalatul euh, xalifa masala bu jafe la problème la bu compliqué bu ami dëkk bu ñaas boo gisee ñu ne bu amit dég bu ñaas la mooy juddoo na ca mbiram xalifa ay wuute yu bari bari bari booba ba tey foo dem rekk coow ak nguur nguuru yu fa am ku nekk bëgg jiitu la ku nekk bëgg nekk xalifa kon ay xilaafaat ak i wuutee ki nizaa yàgg na ci am taal na sax ay xare ay noonoo am na ci ba ay xare am ci pour bëgg samp xalifa ku nekk bëgg koo nekk kee ànd ak ñee kee ànd ak ñee looloo ngi dox ba suñ bi tey ji de lii yëpp ma ngi am gannaaw bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne jamono ci domaine boobu al oustaz Ahmad Amin wax na ci téeram bu naan fajrul islam maa ngi koy wax dafa wax ne yonent bi aleyhi salaatu génn na jamono te ràññilut sàkkul ku koy wuutu yonent bi dafa génn jamono rekk dem la mu mujj wax daal ba yaram wa tàngee sibiru ba metti ba yaram wi tàng bee mu xaw a ñàkk ak yëgam ñu sotti ko ndox ba yaram wi seddaat bu mu ximmalikoo daf ne seet leen sama eh, jiba ay dinaar a ngi ci ay dërëm ngeen joxe ko waruma génn àddina ay dinaar nekk ci sama jiba te am ku ko soxla te lekkut yàlla dogal lu mu amaat lu mel ni dafa xamaat mu ximmalikuwaat ne def ngeen ko Aïcha ne déedéet mu ne ndaxam waay damaa nar a génn jamono ñu wekk fii ay dërëm ak i dinaar yu ma soxlawut lekkuma ko te keneen lekkut te dib jullit gaaw leen ngeen def loolu dal di ne yàlla rëbb na yahut ak nasaraan ñoom ne waay seen jàkkee ay qabru lañ ko def lii la mujj wax moom yonent bi alayhi salatu wasalaam jotu la wax ku koy wutu jotu la wax itam nan ngeen di tànnee ki may wutu lii nag tax na ba julit ña daje nañu la gën a tiis ak la gën a metti la gën a am danger ci seen yoon ak seen doxaliin ci ni ñuy tànnee kan mooy wuutu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kan mu koy wuutu ci doxaliinu nguur gi politique bi loolu indi na leen coono ak mettit échec ya am ak néew ca loolu la jóge ndax foofu pour tànn kuy wutu yonent bi indi na loola indi na ay mbooloo yu génn dal di xotteeku dem seen yoon toppatuñu xalifa bi masalan da nga dégg ne maarakatu Siffin diggante aliyun ak muawiya la woon gannaaw yonent bi ci le kuré bi ñëk génn ne duñ toppati khalifa muy khawarij ci la ñëk génn ber sen dar nee nañ lu tax aliyun di nangu tahkim ba bobu mu defon ci maarakatu sifay mu nekk benen kuré khalifa baangi fi julit ñi top ko kuré bu ñan khawarij génn ñu dem ba yàgg am na benn kuréel bu ñuy tuddee chia chia génn na toppatul xalifa bi moom dafa wax ne ki war a nekk xalifa yonent bi daal dafa war a nekk ci al usratu sharifa xeet bi nga xam ne ñooy famille yonent bi rek ba muy banu hashim wala banu ali wala banu hashim ñoom rek ñoo war a wutu yonent bi ndax ñooy fameem waaye xilaafa gi warul dem feneen kon ñu ne ali moo fi war a nekk wala abbas waaye keneen yellawu ko loolu mu indi chia it génn ndax xalifa nekk ku duhul famille yonent bi ñoom it loolu moo leen génne am na beneen kuré bu génn bu tudd al marjia marjia ñoom dañ ne xawaarij ne nañ aliyun yéefér na ndax nangu na taxkiim Ousmane itam yéeféer na ndax la mu def loolu la xawaarij wax xawaarij nag nee nañu ndéem waa marjee nee nañu ndéem xawaarij yéeféerloo nañu Aliyu nag usmaan chia weddi nañ Babacar ak Omar ak Ousmane yépp Ali rek lañ d'accordal ndax famille yonent bi la ñu rëbb leen saaga leen xeex ak ñoom marji ana ñun nag ci digg bi ñee weddi Ali nag Ousmane ànduñoo ak ñoom ñee weddi Babacar ak Omar ak Ousmane ànduñoo ak ñoom ñun daal ñoo ngi ci digg bi balaa ñoo xam ku ci jub daal seen mbir daal nan nan ko yiixee ba koog yàlla toppatuñ ci kenn nag ñooñu ñooy almarji a gannaaw ga am na beneen kuréel bu génn bu ñu tuddee al qadriyatu wal jabriya qadriya ak jabriya ñoom ñooy mu'tazila ñoom ay philosophie lañ booba la xalaatu philosophie commencé génn mbir mu nekk ñu koy discuter nit ki ñoom ñuy ñëw naanu nit ki daal bu mooy yàlla mu defu dara yàllaa ko ko def loo kon waruñ ko ci mbugal ndax moom moo muti cëram xelam yàllaa ko ko defloo kon qadru بلا la yàlla dogal loolu ci moom loolu moo di qadriya ñene ñene déedéet insaan kay mu xayyar la ngir moomu nekk ngir moo xam mu'tazila ñoo ko ñu tudde firqatul qadriyati wal jabriya balbala la philosophie la ñaare boo jàngee ba tribunal dinañ la indil affaire yooyu waaye du ñu am capacité waxal la lu ciy taxawaayu sunna ak lislaam dañuy indi rek ba yàq sam xel mën ngaa jóge ci foofu sax euh, ci terminal balaa nga faa jóge sax ci lay jàngal philosophie mën na laa far yàq nga jógee ci yow doo nekk tib jullit or li waroon a am moo di ñu xamal la ne insaan mu xayyar la nit nekkul mukk buur pour tok rek ne lo def rek yàlla la ko def lo déedéet lo def ya ko def yow la neex lu waral loolu yàlla def la joxam xel xel ci lañ lay atte gisoo ab dof amul bàkkaar gune gu majur amul bàkkaar waye biñ la joxé xel rek bobu nga nga nek mukallaf bobu nak yaay nek responsable ci say acte yépp lo def lu bax ya ko tey lo def lu bon ya ko tey masalan so jëndoon sa tiisi bi jox ko waa ji teer bi ne ko ñawal ma xaftaan mu defal la pantalon da ngeen di xeex wala mu fay la ah doo wax ne yàllaa ko dogal boo ne woon soxna si toggal ma ceeb mu toggal ab laax boo wàccee ci kër gi tey jàmm du fa am ah wax ne yàllaa ko dogal kon nag li nga ne yàllaa ko dogal yow la neex yaa ko tey kon boo defee lu baax yaa ko tey boo defee lu bon yaa ko tey ndax am gi nga am xel xel ci la àtte nit ngir mi it gannaaw gi ñu génn ñoom it yore seen mazhab ci jamono jooju nag bee tey ci la ay wuute tàmbali di lekk yaramu àndoog jullit ñi ba tey jile kooku lu musiba la mu wàcc ci jullit ñi doyadal na seen kàttan tasaare na seeni xaleet xelaat ak seeni sàppe wante ana yan charte la ulamaaw yi tëral pour nit ki war a nekk xalifa boo ko gisee ci nit rek yelloo na ko boo ko gisut ci moom nag euh, dañ koo kiiwaaye kiiwul bi ci njëkk mooy na nekk aalim munul ñàkk fokk mu xam nag fokk mu xam diine na xam alquran na xam sunna fokk mu nekk aalim ndax ku nekk ci kanam nit ñi di di di di exécuter di tanfiis yàlla yi war nga leen a xam boo nekkee jaahil ay musiba rek day dal di ñëw réer bu boroom attee rek musiba ñëw dafa amoon ñaari dong yi doon jàng ci daara ji ñu bokk jàng risaala jàng xam-xam ñu ñibbi ndekk kenn ki déggut mu dem ca dëkkam rek am lu muy pratiquer rek na ci risaal la ko jàng waa ji tukki si ci moom benn bés dëj am fa ñu dem ci armeel yi rek ñu dugal niw bi rek mu dégg waa ji ne indi leen soow indi leen soow ñu indi soow sotti ca daldi di suul bu ñëwee mbokku daara bi ne ko aw sa sa waay yow loolu foo foo ko jàng mu ne ah, nga fàtte nga fàtte leen jàngoon ci risaale na bu ñuy suul ويوضع عليها لبن من يجي سواي دو لبنو ده لبينو ده اي ديمبلين لا داني نيو سوف سوف ولا خير فغت كو بدوال بتيكو واي دو سودي سي نيا كا خام لي موي اندي تا غيس nga بن ماسك رك لا ياق نيكو لبنو فك موي لبينو رك مصيبه دال دي موتا بور nga nek khalifa شرط بي تي جيك موي دا ngay xam nak ngay xam mbir ya wala di jub ñaareel ba na nga nekk ku maandoo bay wax dëgg rek nag ak lu metti metti waxal dëgg rek waaye ak lu metti metti ndax xilaafa palug diine la goo xam ne boroom war naa xool ci mbiri nit ñi war a xool ci mbiri atte yi kooku bu maandowut léegi tey mu soñ kenn jëfandikoo dooleem ak kàttanam ci kenn fekk da koo tooñ ndax ñàkk maandu benn nangu ñetteel bi mooy fokk mu nekk nit ko am kafaa muy capacité euh, na amit ak njàmbaar pour que lu yàlla atte atte bi yàlla bi mu mën kaa dogal mën kaa wéele loolay tax mu mën a takk xare def jiyaar la lay tax mu mën a xiir nit ñi ne gàddu leen jaasi jiyaar ak yéefar yi foog mu am ak njàmbaar am capacité ñeenteel bi te moo ci mujj mooy xalifa nag du nekk ku wopp foog mu wér na am ñaari loxo am ñaari tànk am ñaari gët ami nopp amam xel lépp lu wàññi ci cëram dootul mën a nekk xalifa ci sharia xawaas yépp mooy mucc yëgukaayam yépp ñooy mucc ayib loolu moo tax gis nga même ilimaan dañ ci charte ay cëram mat bu cër yi matut dañee bu keneen amul daal mu ne fa waaye sib nañ ko wàññeeku dara dara dara ci xalifa bi ci lii day tax xalaatam ak xelam wàññeeku day tax jëfam dal di wàññeeku mu nekk ku lott dootul mën a jëfandiku voilà charte yi la ulama yi wax ne ñooy shurutul xilaafa su ma ko baamtoo te gàttal ko dama naan mu am xam-xam mu maandoo mu am capacité waaye mu wér dañ seet alquran yahud yi bañ na yàlla yónnil ci ñun yónnint te nga jox ñu buur bu ànd ak ñun mu nekk suñ xalifa jiite ñu ah booba Samwil ma ngi fii gannaaw yonent yàlla Muusaa la woon ah, Samwil ñu ne ko wutal ñu daal xalifa ku nu jiite Samwil ne leen yàlla indi na taaluta na laa qad baasa lakum taaluta malikan ñu ne ah déedéet kii nekk suñ kilifa ñu ne lu tax ñu ne ko amut alal yorut dara faqir la kii mënul nekk xalifa yàlla bëgg leen wan ne sarti xalifa am alal bokk ci woon wér gu yaram la woon ak xam-xam ak man-man ak njàmbaar ak capacité moo tax alquran ne inna allah astafahu alaykum wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jismi wallahu yuti mulkahu man yashaa والله واسع عليم البقرة 247 موك جلدي أبو بكر الصديق لو مقدم لون تي الخلفاء الراشدون اك صحابي ابو بكر الخلافة تي بابم لكن ابو بكر تي بابم ينتبه عليه الصلاه والسلام yenent bi yéeg na dem ci rafiqul aala maanaam wuy ji na boromam lu tax ñuy wax naan yenent bi dem na ci rafiqul aala lu lu waral loolu moom moo ko waxal bopp dafa feebar dal di woo Fatimata ne ko sëggal ma déey la Fatimata sëgg mu wax ko dara mu dal di siggi dal di ree mu ne ko kaay ma waxalaat la mu sëggaat mu déey ko dara Fatimata siggi dal di jooy fig maa ngi fii mu noppi xamun ko xamun ko ba yàgg rek ñu dégg yonent bi naan allahuma rafiq al aala allahuma rafiq al aala rek dal di dem ba mu wéyee nañu laaj Fatima mu ne daf maa waxoon ne ma sama njaboot yaa ma ci njëkk a fekki ma ree loolu ndax kontaan ci mu waxaat ma ne yàlla kat daf maa tànnaloo ma dund ba mu jëg jamono wala ma yéeg fekki ma lawu laala tànn naa nag dem ci sama borom mooy allahuma rafiqal ala fatimata xam ne mbir mi jeex na mu dal di jooy loolu ma waxoon nag moo tax dañ naan yonent bi dem na ci rafiqul ala ñun nag ñu jëlee ko fii léegi ku màggati sax kenn du wax dee na naa nelaw naag wàññeeku nag nangam nangam nag ila di ko wutale ay seeni mbir yu bopp daal wante kii moom ma waxal boppam ne allahuma rafiqal ala moo tax ñu di ko ko waxal waaye alquran moom li mu wax mooy muhammad deena la wax afa in maata afa in maata aw qutila ba yonent bi demee ci rafiqul ala keroog bés boobu ndaxam bisi altine la woon ci weeri gàmmu nekkoon na bis bu doy waar fukki fan ak ñett ci weeru gàmmu la woon di altine keroog day xew-xew la ci histoire lislaam bu rëy rëy rëy ndax lenn ci saaba yi dañ ne loolu mënul nekk kooku impossible la maanaam mustahil lu jomb la yeneen ci bi déwut fekk na Aboubacar ma nga amoon jabaram jeneen ju ndaw ju nekkut ci biir Madina dëkk bu ñaan sunax fa la fanaani woon ca kër googu ñu wooyi ko rek mu ñëw fekk yonent bi dem na ci rafiqul ala dëkk baa ngi jaxasoo fekk na ka ka ñëpp yaakaaroon ne dafa dëgër muy Omar ibn al ndekete woo dëgërul ci lu mel noonu fekk nañ Omar keroog perdal na ba ma ngay wax ak nit ñi ma ngay wax ak nit ñi rek naan waaw léegi tey nii la mel ak naa la mel di wax rek yonent bi deewul man deemu du mënul dee du gën a fi génn fi ba ab Babacar al dina daree yéeg si waxul Omar dara dafa dugg ci néeg Aïcha fekk yonent bi ñu ngi ko muur mu dal di ko muri ba muree xarkanam bi dal di ko fóot ne ko tibta xayyan wa tibta mayitan yaa tey bi ngay dund yaa tey bi nga dee dal di jël sër bi muuraat ko nag génn ba mu génnee mu fekk Omar ibnul Xataab ñëpp a nga ko wër ma nga xuutu ba naan am na ay nit ci naafeq yi dañoo wax ne yonent bi dee na ñu wax nañu ko waaye géej naa ci yàlla ne yonent bi deewut dafa dem ci boromam na Moussa ibn Imran demee woon ñeent fukki fan gannaaw bu mu dellu si indi téere yonent bi deewut dafa dem dana ñëw wallaay géej naa ci yàlla ne dana dellu si te bu dellu see danañu dagg yi ay nit yi ak i tànk ñi nga xam ne ñoo daan toog naan yonent bi dee na dee na dee di wax rek nii la Omar meloon keroog Babacar ne Omar toogal yow ala rislik toogal moo ko mag moo ko gën a xam moo ko magit ci diini ji Aboubacar Ali taxaw ne yaa Omar ala rislik toogal ma ne wan sët Omar mel ni rek ku rakkaaju rek bañ na du noppi rek yaram waa ngay lox cër yëpp nga yëngu Babacar xam ne kii moom nekkatu fi Babacar daal di geesu nit ñi ne yéen nit ñi lay waxee inna man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana yacbudu allah fa inna allah xayun laa yamuut wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشاكرين 144 العمران بابا كرني إيه ينني كنن جامو محمد نياكنغا محمد دين كو خامنا يالا نغا دون جامو يالا موم مغي دوندك نيون تدو دي alquran nag waxoon nañu ne muhammad nekkul lu mooy ku yàlla yónni na yónninte ya ko jiitu woon ñëwee ba dem noonu lay jiitoo ba dem mu ndax nag yéen kon su muhammad dee deewu naturel feebar rekk ba dee walla mu demoon ci xare ñu rey ko ndeke yéen kon da ngeen di murtat dellu gannaaw dal di génn diine ji ku def loola du wàññi yàlla dara ña yàlla nag ci lii yàlla dana leen fay lii la Babacar wax keroog ñépp dal nag ña perte doon dellu si ña yëngatu woon dal mu ngi mel ni bi xanaa dañ musuñu ko dégg lu may keroog fàtte woon nañ ko sax Babacar ak Omar nag nekkoon nañ delluwaat ci néeg bi seen yonent bi mbir yi am ñu aha yéen a ngi fii yow ak Omar kat waaye lan saar ñu ngay daje fële ca saqifatu banu saida ñu diso diisoo kan mooy nekk xalifa yonent bi te naruñ leen ci boole sax ne Omar nañ jëm ci ñëw ñu ñëw ci ñëw ba ñu ñëwee ci moom ci kanam tuuti mu wax la daje boobu ni ma solo waaye kan mooy kan la histoire dafa wax ne muy taarix Babacar turam mooy abu Aboubacar mooy bàyyi jànq bi buñ ko liraabee Aboubacar Abibacar Ababacar ndax abu ñu bokk ci asmaul xams bu rafaa ñëwee ngeen di waaw nga ne abu bu nasab ñëwee ngeen di liif aba bu jar ñëwee nga indi yaa kasra nga ne abi mu wutu kasra même ci wax wolof da nga dégg ku wax rek abubakar wala ababakar nga xam ndax jàng naam déet boo ne woon romb naa abubakar ñu ne déedéet romb naa abibakar boo ne gis naa abubakar ñu ne déedéet gis naa ababakar foog nga liraab ko allahuma lu may nga def koy xikaaya ko defee xikaaya nag بعد بي يلازموا أبا ولا أبي ولا أبورك وعلى كل حال ترم دو أبو بكر ترم موي عبد الله عتيق ابن أبي قحافة نون لتد عبد الله عتيق ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر عبد الله عتيق ابن أبي قحافة مي عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تميم ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر قريشي دقل yaayam mu ngi tudd ummul xayri waaye turam dëgg mooy salma bintu saxr yaayam dañ koy dàkkante ummul xayri waaye turam dëgg mooy salma bintu saxr yaayam ak baayam ñoo bokk ndax ndax salma bintu saxr ibnu amir la ibnu kaab ibnu saad ibnu tamim ibnu maat ibnu adnan mooy ma ngi bokk ci sangu quraish kon kii moo di ci wàllu askan kañ la juddu ma nga juddu 83 njëkk a gàddaay yonent bi alayhi salatu wasalaam 83 qabla al hijra la juddu lan la doon liggéey jaay ak jënd commerçant la woon bu amam xel nag wante commerçant bu jub انتبع عليه الصلاة والسلام وحنا نوخون ناني إن صح الحديث كل تاجر فاجر إلا أبو بكر الصديق نانا يخن جولك ييب أي كتشور لن بمدس بابا كر معنى بمدس كو بابا كر أكو يدف لمو يدف مو ينجب جب جسل لغي برك كون كومر سالون بواما مخل كو درجة لكي قريش كو يكتكلوون تي moo njëkk dugg ci lislaam itam moo njëkk dugg ci lislaam ñaareel yonent bi loola nag moo ci jiitu ñépp baayam abu quhafa nag moom dugg ci diine lu may fatxu makk ba yonent bi bëgg naa dina fatxu makka la abu door a dugg ci lislaam gàddaa yu doon fa ma nga toogoon makk rek asalaam loolu ca ayamu daawal ula la jamono ji nga xam ne bariwuñu matuñ rombuwuñ ñeen fukk di daje ci kër arqam ibnu abil arqam booba la yaay Babacar dugg ci diine yenent bi alayhi salaatu moo mag Babacar magee na ko ñaari at ngi mel ni tofam la waaye terewul ay xarit la woon yu sell ju xaritoo ba ba Babacar amee fukki at ak juróom-ñett fekk yonent bi am ñaar fukki at ci lañ tàmbalee di ànd duñ teqalikoo ci dara même buñ daan dem Cham di wuti marchandise ñooy ànd Babacar nag nan la meloon keroog bi ñu wax Ali ibn Abi nañ leen ne Ali ndaam ak dàkk la woon dënn bi sëq lipp ak kawar loxo yi sax dafa am kawar mu am sikkim bu rëy ak ay faas bopp ba leel mu am kàttan lool Babacar nag melut noonu Babacar moom dafa weexoon tàll tàll tàll aw yaram waaye dafa sewoon ruuj ay kaabaabam dafa jeexoon tàkk ba yax yi génn sewaay ba ak néew doole ga taxoon na dafa xawoon a lunku xaw a sëgg bët yi it bët yu xóot la amoon melu ni yu ali jëba itam dafa génnoon baaraam yi itam dafa sewoon kon rafetul jëm ku jàngoon la nag ba mën a bind mën a liir njëkk muy nekk jullit ku xamoon histoire la it ak askan yi kilifa la woon ci xeet wa mu nekkoon la mu daan jaay ak jënd nag ay tiisi la tiisi la doon jaay ak jënd ku fegu la woon ku màndu la Babacar ku siiwee am njub la ak kóolate mësula naan sàngara mukk nag boo waxee ci ndaw ak Babacar tuuti ak liggéeyam dangay wax ne mësula naan sàngara mukk mësula def faaxisha muy mu yàlla ci wàllu jigéen mukk li mu daan liggéeyee jaay ak jënd la xam nañ Aboubacar ba muy ndaw ne mësula sujjóotal benn xërëm ci xërëmi màkk yu bari faydul amar yi benn bindkat la wax na ci téeram ne Babacar dafa netti li ne sama baay ma sama jël man Babacar booba xalel la sama bàyyi tey ci sama loxo nuy dem dem dem ba ci benn béréb ci xërami màkk ya mu ne sama bàyyi ne ma Babacar sa yàlla yaa ngi nii muy xëram yi toogal fii nga toroxlu leen nga ñaan xëram yi nga ñaan yàlla yi mu ne mu bàyyi ma fa mu ne ma xool sama baay ba mu génn ma ñëw ci xëram bi ne man de dama xiif jox ma ma lekk mu ne tontuwu ma ma ne ko man de dama rafle wat dama mu ne tontuwuma ma di jël sama ngëndu xeer ne ko ca boppu xiram ba tées ba am lu ca damm mu ne xiram ba mu ne affaire ba munul défendre boppam mu bàyyi rek ma da dam ma ko bàyyi ji del si ne ko lii lan la mu ne bàyyi mu kii kan la bàyyi ne ko kii mooy xubbal وبل موي كبير آلهة مكة يعني مكة يبكي يجي جنا مك نعم دي كده فني ألكونغا بابا كرنا مرة دي ره نباي هي لي أو قير لا وين تبخ دولار دجرين من عن كوي جامو من بما كوا خير سام باي دال دي ما بس بس مو خمنة ما دانو جي فلي من يد دي ما مجنة تي برب من بلا ما ألكو من ما دم mu ne benn bés muy naan sàngara sama baay mu sotti kaasu sàngara gobelet bi jox ma ne ma naanal mu ne ma tuur ko mu jóge ci ne daf may dóor fekk génn góor gu baax nga fu koy naan ibnu an kooku ne ko bu ko dóor kii bañu te def aw aw yiw góor góor lu ci def safaan bu ko dóor kay mu bàyyi ko bàyyam ne ko yow sax bu bana lu tax nga def ko lii lu tax nga wax ko wax ji lu tax doo naan sàngara Babacar ne bàyyi euh, gis nga hubal la comme mooy yàlla man ma xiif mënuma leyal ma mar mënuma nàndal ma rafle mënuma wodd ma di ko dóor mënula fanq dóor yi moo tax ma xam ne du yàlla mu ne ko lu tax doo naan sàngara mu ne maa xam ne du ma teree añ du ma teree reer te dana yàq sa moom xel moo tax duma ko naan ibnu jadaan ne abu quhafa man de ñenaa la maa ngi ne wut njiit am doom ju mel ne sa doom ji gis nga sa doom ji mbir mu mag la nar a yore ëllëg ci ay nitam ndax jikko ji jub na aboubacar musul am benn xarit bu muy àndal lu ma yonente bi alei salatu salaam ci ndawam muhammad ibne abdullah ibne abdul mutalib amuloon benn xarit lu may babacar bés bu ne balaa jant so danañ gisee danañu wax léeg-léeg yonent bi ñëw di ko nettali naan ko babacar man de am naa ay secret yow rek laa koy waxal jege ma ma waxal la babacar toog yonent bi ne ko gis nga man su ma toogee man kenn damay dégg ku may woo naan yaa Muhammad te kenn du fa nekk ragal naa loolu mu nekk mbir de Babacar ne ko mbir la kay mu ne fu ma wéet rek nekkuma kenn am na ku may waxee rek naan ma yaa Muhammad daana wax ak moom lu nekk kon na ngi dellu ca bayant bi génnee àddina لانصار دجي تي سقفتو بنو سعيد بنو سعيدا بابك رك عمر ني نندم فم تي نيوم كون ديلو نان تي سقفتو بنو سعيدا فك نيو لانصار ني غي دجي ابو بكر رك عمر نيو فا ابو عبيده عامر ابن الجراح كي ينتبه واخني موي امين هذه الامه فك نيو لنصار دجنا نيو بدكور تي سعد ابن عبادة الخزرجي مورن سانغو لنصار موي نيك خليفة انت نيب دجنا سعد ابن عبادة موي خليفة بي آه بابكر دالدي وقتان توتي ونهي لنصار ني نيو ام بن واي جوك تخاو daldi ne muhaajiroona yéen daal li leen di wax mooy mu yow Babacar ak Omar ak Abu Ubayda taag yéen ñi gàddaayan ànd ak yéen bi ñëw fii daal am leen seen xalifa nu am sunu xalifa Abu Bakar jóg taxaw daal di taggalan saar baalu leen dara ci lu baax lu may mu wax ko ba yàgg mu ne yéen wàllan saar fàttewu ma ne yénent bi waxoon na ci yéen wax ju am solo mooy law salaka naasu waadiyan wa salakat al ansaaru waadiyan la salaktu waadiyal ansaari yonent bi nee na bu ñépp jaaroon ciw yoon aku xur lansaar jaar ci aw xur danaa wacc yoonu ñépp ak xur yépp jaar fi lansaar jaar kon am ngeen ngëneel abubakar ne yow saada ibnu ubaadata yow miñ def xalifa ne yaa wuute yonent bi يا سعد يا دي قم نغي يونت بي صلى الله عليه وسلم واخنا تي ياغ كو فكه يونت مسنا واخ نه قريش ولات هذا الامر سما مبير مي قريش نيوكاي مينغو اولك مسنا كو واخ دي فكه نغي يونت بي ني فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم ñi baax ci nit ñi nañ topp ñi baax ci muhaajiruun ci Quraysh ñi bon itam dañuy topp seen ñu bon ñi ba loola amee Xuzaymat ibnu Saabit dal di jóg ne yéen waa Ansaar su ngeen seetaanee ba Quraysh jiitu leen ci lii ba nekk xalifa danañ leen jiitu ci aw yiw yowmal qiyaam yéen yéenay Ansaar cere bi yàlla bi ci yéen la mottali ko ba yonent bi gàddaayee ci yenn la làqu si mbirum yonent bi ci yéen la fii la génne àddina te fii lañ koy denc man daal li ma ci xam mooy tànn leen benn waay boo xam ne ñëpp danañ ko wekk Quraysh danañ ko ragal lan lansaar danañ ko wóolu ngeen def ko mu nekk xalifa ansaar ne kooku kan lay doon ñu ne saadu saadu ibnu ubaada te moom kenn yabu ko te mooy sangu al ansaar ñoom ñëpp ñu ne saadan nuridu saadan nuridu saad saadu lañ bëgg saadu lañ bëgg foofu nag benn waay bu ñu naan asid ibnul xuseyn ci awsala ci lan saar dal di jóg moom ku ñu xam la ci ñoom ku baax la woon mu ne waa lan saar xéewal gi leen yàlla jox day gu rëy la bu yàlla demee ba tudde leen lansaar gàddaay yonent bi nekk ci yéen yonent bi yàlla moomee ko fii ci yéen loolu day rëy na dama bañ na xéwal googu li ngeen koy e, faye ak canta ngeen di ko faye ak weddi dama bëgg ngeen xam ne mbiram xilaafa gii ci Quraysh lay nekk du ci yéen de ku Quraysh jiital topp leen ci ku ñu yéexal desal gannaaw ba desal leen ko gannaaw ba Asid ibn husayn pare rek nga xam ne ci kilife lan saar la waa lan saar jóg saag ko moom mu ne man féete naa mu muhaajiroon a man dem fale taxaw beneen waaye taxaw ku naan Bachir ibnu Saad ci xasraj la bokk comme aw sa wax na foo xasraj wax kooku ne yéen wàllan saar yéen daal yee seen mbir ak muhaajiriin li ma ni ma ko gisee mooy muhaajiroona ci yéen lañ bokk yéen ci ñoom ngeen bokk fekkee li ngeen di woote ci yéen dëgg la ba ñuy gàddaayee ci yéen lañu làqu si ngeen dimbale ngeen leen te tàppaleen leen kon lañ indi waale won bu len ko jéem nangu ci ñoom kat len yàlla jox wax dëgg moo gën li ngeen jox seen bopp yàlla ne def na yéen da ngeen di dimbale rek waaye ñee ñoo yore mbir ragal naa kat li yàlla wax nekk ci yéen ngeen bokk ci man baddale nicmatallahi kufran te waslaw qawmahum daral bawaar جهنم يسلونا فبيت القرار رجلنا تيين لمل نونو دي كوكو بوم جيخلي اي وخم غاني ساغ كو موي من من مان تي غناو مهاجرون دم تخاو نالي بن واي بن عمير ابن ابن سعيد تي الانصار لا من ايين ولا انصار وفكي خلافه جي ñun dal dañu bëgg wax ji jeex xilaafa gi bu nekkee ci yéen lansaar nekkul ci Quraysh taxaw leen nee ñu jaayante ngeen mu jeex bu fekkee ne ci Quraysh la nar a nekk toog leen ñu ñu jaayante Quraysh mu daldi ci teg nag ne génn naa ci yàlla yenent bi génnul àddina lu mooy ñun xam nañ ku war a mën a nekk xalifaam xam nañ ko bu yàgg ñun ndax ñun xamoon nañ ne babakar. moo war a nekk xalifa ndax bu yenent bi feebaree ba mënatul jiite si ci jàkk ji Babacar la ne jiital nit ñi te lëng nañ ko ba mu yegg si taxaw ci kanam Babacar jiite ba mu waxee loolu moom it ñu saag ko ŋàññe ko mu ne baax na maa ngi ci gannaaw muhaajiroon benn waaye bu ñu naan saab saabit ibnu qays dal di jóg moom nag moo dàqoon a wax ci leen saab moo خطيب moom يا معشر المهاجرين إن الله بعث محمدا فأقام بمكة سمع الأذى والتكذيب وأمره الله بالكف والصفح الجميل ثم أمره بالهجرة وكتب عليه القتال فنقله عن داره إلينا فكنا أنصاره وكانت دارنا مهاجره ثم قدمتم علينا فقاسمناكم معاشر المهاجرين الأموال وأنزلناكم الديار وكفيناكم العمل وأسرناكم بكل شيء فنحن أنصار الله وكتبة الإسلام أنتم معشر المهاجرين بدعة منا وقد دقت إلينا من قومكم داقة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس شعبا لسلكت لسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار فاسلكوا شعب الانصار صعب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكو دال دي واتنا الانصار ني ورا نيك خليفه ندا داف يين مهاجرون يالا يين يينت بي تي مكه مسخجا ني لور كو غينيكو yàlla ne ko bu mu fayu fayuwul yàlla digal ko gàddaay mu gàddaay ñëw ci ñun yàlla sant ko xare mu ànd ak ñun nuy xeex di ko dimbale suñ kër bi mu gàddaayee fi la jëm yéen ba ngeen ñëwee ñu séddoog yéen suñu alal yi séddoog séddoog yéen suñu kër yi séddoog yéen suñu tool yi neleen toog leen bu leen liggéey dara ñu gënal leen ci suñ bopp ndax nun ñooy dim ñun ñooy dimbale yàlla ñun ñooy xareb lislaam bi yéen waa muhaajiroona yéen ab ab aw daggin ngeen ci ñun waaye nag am na benn galan bu jiim suñ diggante buy wax kan mooy xalifa mooy bi yonent bi ne bu ñëpp jaaroon ci xur lansaar jaar ci xur ma jaar ci xuru lansaar kon yéen muhaajiroon yéen itam soobu leen fi yonent soo bu mooy topp ci lansaar wax ji bari na Babacar Dora jóg nag kër jóg ne waaw li ngeen wax yëpp day dëgg la ci seen ngëneel yéen lan saar dëgg-dëgg ñu baax ngeen ni ngeen wax it noonu ngeen mel waaye arab du ñu saxal mbiram xilaafa gi lu may mu nekk ci Quraysh rek ndax Quraysh ñoo gën ci arab yi ci kër tey même yo woote bi yonent Yàlla Ibrahim ci Quraysh la woon ndax Makka la woon man kër day man nangu naa kenn ci ñaar ñii ci muhajirin kuñ ci jiital mu nekk xalifa man babacar ma jaayanteeg moom kenn ki mooy omar ibnul xataab kenn ki mooy abu ubaydata amir ibnul jarraax man daal man babacar lii laa nangu man bañ waxee loolu omar ibnul xataab ne bëreet ne déedéet babacar yow yaa njëkk a dugg ci lislaam yow yaa nu gën a xam yonent bi yow yaa ko ñaareel ci gàddaay ga yow yaa ko ñaareel ci xunt mi yow rekk la wér nga nekk imaam te fekk yonent baa ngi dund jullit ñëpp di ko fekke te kenn di ko weddi man Omar dey man talalal sa loxo ma jaayante yow daal di jël loxoom teg ci loxol Babacar ne nag Babacar muy xalifa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy def loolu benn waa bu naan Bachir ibnu Saad daal ko bamax ne doo ko njëkk jaayante bàyyil ma njëkk jaayante ko Omar ibnul Xataab euh, Babacar ndax bu ëllëgee taarix yëpp xam ne man من بشير بن سعد ما نك جاينت ابو بكر الصديق نانغو مو نك خليفه النبي عليه الصلاه والسلام با اوسا جيسه لولو خزر جيس لولو نيوم نيب ني نيو نك جاينت ابو بكر تخاو سي كانام رك بن بار بن نك بن بار بن عمر بن الخطاب نك بغ واخ بابا كار نك عمر توغل عمر توغل مو دال دي توغ بابا كار دال دي جوغ نك ma ngay xutba xutbaam nga xutba goo xam ne histoire saxal na ko ba léegi li mu njëkk wax mooy ñun ñoo gàddaay ànd ak bi ñun dugg ci arab ñoo ci akir, a digg doomu ak kër ci aw askan ñoo ci rafet ay kanam ak i jikko ñun ñoo ci gën a rafet ni ñuy méngoo wante ci arab yi te noo ci gën a toppatoo ak bokk ñoo gën a jege yonent bi aleyhi salaatu ci deret ñun ñoo di giiram gi mu génnee nen bi ko tostoon ci ñun la ñun nag ñoo leen njëkk dugg ci diine ji ñun la alquran njëkk tudd ci yéen balaa alquran wax lan saar muhaajiroon la njëkk tudd waaye yéen yéenay suñu mbokk ci diine yéenay bokk ak ñun ci mànga gi yéenay suñu ansaar ci lim yéen yéen ñu dimbale yan yàlla fay leen yiw ñun daal ñun ñooy jiitu yéen yéenay jaraaf yéen a ciy topp ara mu ne arab yi duñu topp lu mooy giiru Quraysh gi yéen nag dëgg la ne kenn du xëccoog yéen seen ngëneel ngëneel leen yàlla jox ci muhaajiroon a ñëw ci yéen yeneen bi ñëw ci yéen kenn du ko xëccoog yéen waaye xilaafa gi nak ak taxaw mbirum yeneen bii ak imaama gi ci ñun la dal dina wasalaam lii yépp nag bañ koy def fekk na kenn dencagul yeneen bi yépp booba ñu ngi ci taluñu sax denc yenent bi ndax mbirum xilaafa la jël leen rekk gannaaw ko lañ door ñëw nag ci yenent bi alayhi salaatu salaam ñu sang ko daldi wut ñetti sér yu weex laxas ko ko ñu daldi ko jullee ulamaa yi nee nañu jullee ga du mbooloo kenn kenn ku ñëw rek da koy dal di jullee te dem nit ñi jullee dem jinne yi jullee dem malaaka yi ñëw keneen ñëw keneen ñëw ñu bàyyi ko fa rekk nag ku ñëw rek jullee dem ma ci loolu yàlla moo ko xam waaye comme dafa dugg nituk ordinaire ay mbir la yoo xam ne lu ci nekk rek yàlla moo koy diglee ñu def ko ñu bëggoon ko jël ne dañ koy suuli yàlla ne yàlla ne malaaka ñëw ne bàyyi leen ko fi ñu ngi dégg baat bi gisuñ jëmm ji mu naan bàyyi leen yonent bi am na ñu ñëwoon di ku muri di xool ñu dégg xaati buy wax naan sàngaleen seen yonent bi suturaal leen noonu lañ ko fa bàyyee bee xaatif wax leen ne denc leen ko ñu dellu ci xadis ñu ne amul benn benn yonent bu faatu lu mooy ci béréb bi nga faatoo ci lañ koy suul duñ ko génne faatoo ci néeg foofa la faatoo ci ëtt foofa la faatoo fenn ci ruq foofa la yonent bu ne fa mu faatoo kenn du ko toxal foofa rek lañ koy suul loolu moo tax ñu suul ko daal di dindi la lu Aïcha ba mu tëddoon gas foofale suul ko ci néeg Aïcha loolu mooy xikma bi boobu fekk na néeg Aïcha sorewul jàkk ji ndax néegu soxna yonent bi dañu waroon jàkk ji gis nga gannaaw gi nag jàkk ji màgg màgg màgg ba lekk ko waaye ñoom góor góor nañ ci la ko jàkk ji lekk lekk benn boor la ko lekkee ba léegi yokkaat bi ñu yokkee jàkk ji benn boor bi féetee ak ak ak ak Euh, xubba yonent bi ba léegi yokk gi jëm fa dañ ko bàyyi rek yokkee ko ci beneen boor fi ñu yokk jàkk ji miir bañ ci yokk ba mu dugg diggante moo xabru bi dara xëju fi léegi sax dañ koy fatt kenn du fa dugg noona euh, lañu ko denc alayhi salaatu wassalaam noona la yéegee ci rafiqul aala bañ ko dencé ba pare nak babaka dal di woni ñëpp ñu taxaw nak mu khutba khutba gi nak dana ci lire tuuti dafa gudd daf ne alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah amma ba'd fa ayuha nas fa inni wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum fa in ahsantu fa a'inuni wa in asatu fa qawimuni asidqu أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يضع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله بني جلي بصل ملنك خد بقي لو عدفنا ينني جيتل ناي ما تي سن كانم واي گنوما گنوما كين تي يين سوما رافتالي لي ماي جيف ديمبالي لين ما تي لولو su ma jëfee lu ñaaw jàdd jubbanti leen ma dëggu kóolëre la fen wor la lu nit néew néew doole ci yéen bu ñëwee ci Babacar ku dëgër la ba ma ba ma àtti ci moom dëgg lu nit dëgër dëgër ci yéen bu ñëwee ci man ku doyadi la ba ma jël ci moom xàqu yàlla bu leen bay jaar xeet wu bay jaar yàlla toroxal leen wattandiku leen mooy yàlla mooy yàlla bu siwee ci xeet ay balaa ki musiba ñëw ci ñoom toppaleen ma fig maa ngi topp yàlla akub yonentaam su ma mooyee yàlla akub yonentaam bu ma kenn topp ci daldi ne jóg leen waxtu yu jot nañu julli ñu julli ba ñu jullee ba sëlmal Babacar xool mbooloo mi gisul Ali mu daal di yónnee ne wooy leen Ali ñoo ko mu ñëw mu ne ko yow yaay rakku yonent bi mu yar la nga di suñu rakk suñ kanam ñu may la suñ doom Fatimata ba ngeen am ay doom yonent bi jóg fii ñu teg ma ci kanam mbooloo ma nekk xalifa lu tax ñëwuloo teg man Ali ne ko maa ngi lay ñaan nga may ma ab diir booba dafa am xew-xew bu xew yonent bi dafa génn àddina fatimata ak abbas ak aliyun ndax ñee kee bay tax la alin doom yi bay tax la fatimata doomi ndigg la ñu ñëw ne babacar dañoo bëgg suñu dono bu ñuy don na yonent bi lañ bëgg jot alal ji ñu donn ko babacar ne aliyun mën nga jàng xam nga te mën nga bind xam nga ne yonent bi nee na ñun yonent yi kenn du doon suñu alal duñ fi bàyyi sarax la xamoon nga ko waaw mu ne kon nag ab doona du ci am lii nag neexul Fatimata neexul Aliyun neexul Abbas moo tax Aliyun téye boppam ci Babacar wante juróom benn weer lañ ca teg Fatimata génn àddina comme na ko yonent bi waxe woon Aliyun ñëw dal di jaayantee ak Babacar ba mu ñëwee di jaayante sa Omar daf ne ko woon doo fi jaayante ndax Alioune daf ne dama bëggoon Babacar nga ñëw sama kër ba ma jaayante yow Omar ne doo dem yow kenn demuloo toogal fii bu ñëwee jaayante bu ñëwut moo xam waaye Babacar ne ko danaa dem fa mu yonent bi la mu ñëw fekk Alioune ci néegam wax ak moom wax ak moom ba ñu settalee Ali Ndoore jaayante ak Aboubacar keroog la Babacar ne fa wallahi la qarabatu rasulillahi ahabu ilayya min an asila min qarabati ñi bokk ak yonent bi ma dimbali leen moo ma gënal dimbali ñi bokk ak man wa inni wallahi laa aalu bikum fi hadihi al amwal التي كانت بيني وبينكم على الحد ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الجي في جلد نتك يننتي مينغو وونكو دوما لينكو آية ينفم يننتي بي مي وخنان نحن معشر الأنبياء لا نورس ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أذكر صنعة فيه فيكم إلا صنعته إن شاء الله تعالى nee na man de déggoon naa yonent bi di wax naan ñun yonent yi duñ ñu donn duñ bàyyi rek sarax la mu jëm ci miskin yi kon nag famille Muhammad mën nañoo lekk ci màng gi ak ci alal ji man de du ma gis jënn jëf ju rafet lu may ma jëf ko ci famille yonent bi incha allah Ali ne ko kon nag mawiduka lil bayati al ashiya kon bu ñu jullee gee ba ba sottal ma jaayante yow ba ñu jullee tusubaar Babacar dal di jàkkarloog mbooloo mi dal di joxe ngant la aliyun wane ne ku bax la ku jubla ku xam la dafa amoon ngant waye dana jaayante si alin dal di jóg dal di jox babakar loxo ak mom ñépp ne ko ali asabta wa ahsanta jubal nga rafetal nga Abubakarin Sadiq nekk na khalifa xalifa waye bu mu nekk xalifa lan la def dafa ne usaamata yen ndaw yi yéen mom joju jooju wax usaamata ibnu zeydin ndaw la won xeyna sax wesu wuton ñaar fukki at ne am naka terewul mom la babakar njëkk jox drapeau raya ne ko demal nga xexi jihar fi sabilillah magi sahabu yep ngi ci nekk ci gannaaw ndaw li kon ndawal jullit warula yaafus lépp lu jëm ci diine daf ci wara a jiitu fokk ngeen feesal jàkk yi fokk ngeen feesal jàngu yi fokk ngeen feesal daara yi ak jàng ak xam ak am njub kon usaamata ibnu see ibnu zeyd yeneent bi daf ko waxoon ne ko na jël drapeau bi dem coté Cham yéefar yi fa nekk euh, bañ a dugg si ci diine te bañ a joxe impôt tey xeex lislaam mu daj ak ñoom usaama jotagul dem yenent bi génn àddina babacar kon ba mu taxawee la mu njëkk a def moom magu saxaaba yi mu ne yéen jurit ñë yéen ndaw yi babacar ne maa leen dénk lii na ngeen ko mokkalee ci man mu ne wala taxuunu wala taxullu bu leen wor bu leen sàcc wala tumassilu wala taqtulu tiflan sagiran wala cheikhan kabiran wala imraatan bu ngeen demee bu leen métital bu leen rey gune gu ndaw bu leen rey màggat bu leen rey jigéen su ngeen demee wala taaqiru naxlan wala taxriquhu bu leen dagg tàndarma bu leen ko lakk wala taqtau shajaratan musmira garab guy meññ mu ne bu leen ko dagg mukk kon affaire affaire environnement gis nga li ci Babacar wax lu am solo la bu leen lakk tàndarma yi bu leen ko gor garab guy meññ bu leen ko laal wala tadbaxu shaatan wala baciran wala baqaratan ila li maakali bu leen rendi xarum kenn wala bëyu kenn wala nagu kenn lu mooy ngeen xare ba sonn bëgg lu ngeen lekk mu ne am na ñu ngeen di romb nag ci seen jàkk ñu di ay làbbe bayle leen foofu fa sawfa tamurruuna bi aqwamin qad faragu anfusahum fi sawami fa da'uuhum wa ma faragu anfusahum lahu muy wax ba yàgg nag dal di jeexal ne in dafiu bismillah dem leen ci turu yàlla jay jaysh usamata dem màng dellusi léegi nag am ñu ne ay eh, mbir mi doyati dina yonent bi dem na ñu murtat xam nga am na ci ñoo xam ne seen ak tuub daanaka rek eh, doy na waar tuubu ñu woon bu baax tuub gu mel ni tuubug Abu Sufyaan radiallahu an tuub gu mel ni ñu mel noonu le xam nga lu doy waar lay doon ña ca meloon noonu nag ñoom nga xam ne seen tub dëgër ku mel ni Musaylama wala eh, muy ay eh, Xunayfi ñoom ñëpp dañoo mujj murtat Babacar nag ba ñoo ñu murtatee muy naafiq yi gannaaw bu yent bi génnee àddina ñu indi ay fitna giiru arab yu bari ni ki banu tayyin ak banu xatafaan banu asad waa mutanabbi talhat ibnu xuwaylid asadi jiite leen banu xunayfa ñooy waa musaylimatul kadab waa yahman yaman aswadul insi jiite leen ñoom ñëpp ñu murtad génn lislaam am na ñeneen ñoo xam ne murtatuñ génnuñu diine waaye ne nañu dootuñ joxe asaka ñoom it ah asaka daal impôt rek la ñu lànk ñoom ba ñoom ñoom ñooy banu tamim seydna aboubacar ne sadiq ne damay xeex ak ñoom jiyaar saaba yi ne ko déet kuy julli du woor di wax baati seede yi bañ a joxe asaka du tax nga mën a xeex moom Babacar ne fa wallahi la uqaatilanna haula la uqaatilanna ulaayika ni may xeex ak yéefér ya laay xeex ñi bare bañ a joxe asaka ndax bañ gee joxe asaka duul ne gis ne azaka jaarul yoon waaye bañ koy joxe azaka li mu doon mooy lislaam lañu xeeb ci lañ bëgg a génn ay luwaam lañ bëgg yàq dinaa xeex ak ñoom aw bakarin sadiq fukki drapeau ak benn takkal na ko ay nit ñu jiite ji ay xare ki ci jëkk mooy Xaalid ibnu Walid moom la na nga dem ci talxatu ibnu Xuwaylid asdi talxatu ibnu Xuwaylid asdi koko khalid lañ ne demal nga xex ak ñom ak malik ibn wayrata ci bitta ikrimati ibn abi jaal moy ñaarel ba mo demone ci musaylimatul kadhab ci yamama mu sharh bil ibn hasanata ne demal nga dimbali ci ikrima mu takkal muhaajir abi umayata ne ko demal nga dimbali ji gañ nga dabilen xuseyfati ibnu muhsin mu ne ko demal duba arfati ibnu harsamata mu ne ko demal maharra suwaydi ibnu muqrin mu ne ko demal tihaama ci yaman ala ibnu alhadrami mu ne ko demal bahrayni tarfati ibnu hajiz mu ne ko demal banu salim ak banu hawasin amru ibnu alaas mu ne ko demal qudaata xaalid ibnu saïd ibnu alaas mu ne ko demal ca cham mu jox leen ay lettre nag yu jëm ca ñooña danañ dugg ci diine ji wala ñu joxe impôt wala ñu fegu ba duñu xeex ak jullit ñi wala ñu xeex ak ñoom aw bakarin sadiq moo def loolu muy fukki drapeau ak benn mu jox ko fukki jàmbaar ak benn ñu ubbi ji ay béréb moo ubbi iraq iraq babacar moo fa dugal di diine kan la yebaloon xaalid nu walid Khalid moo dem xeex Irak dugal fa diine dem Perse Faris muy Iran Khalid moo fa dugal diine loola atam fukk ak ñaar la woon ca gàddaay ga am na beneen xeex bu ñuy tuddee maarakatul walj maarakatul walija xeex la woon bu Khalid Walid jiite woon ci ci Perse ci Faris bilaadul ajab muy Iran Xaalit ba mu fa jógee mu dem ci benn buur bu naan Alwis nga nekkoon ci xayrata mu dal ci seen kaw mokkal leen foofu la Xaalit jaare jaar am baar mokkal leen jaar ci musrikoona yépp mokkal leen ay junne junne la ñu doon mu jaar ci buuri Iran yi muy Shirazad ñépp ñi mu tuubal leen ñi def moom masla Xaalid dem aynu tamra ubbi ko jàpp ñu bari Xaalid dem daw dawmatul jambal jandal ubbi ko ci ndigalal Babacar muy xabaayilu xasan yi ci nekkoon waaye xeex ba usaamata mujjoon a jiitee jëm ca musaylimatul këddaab ca Sham dafa dem musaylima moom murtad daanaka dàq usaamata usaamata foofa la shahid dellu siwut Abubakar dal di yónni ñeneen pour fayu ca Sham ñu wadi arabata jar Gaza ajna diin ubbi ko aboubacarin sadiq kon taxaw na gën jaa rafeti taxawaay ci jullit ñi ci maandoom ci ragal yàllaam ci baaxam yëkkati na drapeau l'islam yëkkati na raayag raayag l'islam ci jamonoy xilaafaam ba yàggut gaa ñaari at la ak tuuti waaye yàlla dogal benn sibiru bu metti daaneel ko ba sibiru bi méttee mu woo magu saxaaba yépp di diisoog ñoom ci bu fi jógee kana ci kana fi nekk ba ñu ñëwee war ko mu ne leen dama bëgg suma ma dee Omar ibnul Xataab nekk xalifa ndax fan yi ma feebar yépp Omar laa ne na jiite nit ñi ci jàkk ji mu daldi Ousmane ibn Affan ne ko bindal كان denkani li بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر في آخر عهده في الدنيا خارجا منها وعند عهده بالآخرة داخلا فيها من بندل لي لبابا بكر بند كي يمجيك يمجي كي جنك جم كي فنم يمجي نك دم كي الآخرة bindal lo mu bind mu ne ko xatta yuminul kafir wa yuminul fajir wa yasduqul kadhib bëgg naa yéefir bi na gëm ne maa ko wax kàccor bi na gëm ne maa ko wax fenkat bi na xam ne maa bind lii maa ko wax lan la inni inni istaxlaftu min baadi umar ibn alxataab fasmau wa attiu wuutal naa ci sama gannaaw Omar ibn al-Khattab dégg leen li may wax te na ko topp fa inni aalullahi wa rasulihi wa diinihi wa nafsi moom day nit la koo xam ne wóolu naa ko ci diine yàlla ji ak yonent bi walu naa ko ci diine ji walu naa ko ci sama bopp dénk naa leen ak moom itam kóolëre ngeen def ak moom aw yiw fa in adala fa dalika dannu bihi wa ilmi fiihi wa in baddala fa kullu mriin ma aktasaba fa li kulli mriin ma aktasaba والخير ما أردت ولا علم لي بالغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والسلام mu ne bu Omar jubalee looloo doon sama njort ci moom loolu it laa xamoon ci moom bu soppee nag indi leneen lu baaxut ah ku nekk nag loo fàggu ci lu bon yaa ko moom man de xaw ma xëy bu xaw ma ëllëg te yàlla nee na ñu tooñ nag ba soppi bu walbatiku ëllëg danañu xam ban soppili walbatikuwaay la ñuy walbati bu ñuy dajeeg seen borom alina wasalaam nii la Babacar dénkaane dal di génn àddina waaye nekkoon Abubakarin Sadiq mu daan jiite aj gi ci boppam daan xutba nit ñi atam juróom-ñeenteel ci gàddaay gi boobu yonent baa ngi fii moom la yebaloon ne ku jiital aj gi Abubakarin Sadiq mu organisé administration état islamique bi daldi ne jàkku yonent bi mooy tribunal bi ñuy àttee mooy école bi ñuy jànge mooy daara ji ñuy ubbee mooy béréb bi ñuy jaamu yàlla naka noonu mu organiser armée bi dal di sàkkal soldaar yi solde lu leen di fay ndax bañ tey seen droit dem aw bakarin sadiq mu organiser baytul maal ci jamono nga xam ne bu ñu yebal xare alal ji yépp ci kees googu lañ koy jëlee ci lañuy jënde jëndee ngànnaay ci lañuy defee ay yobbal ak li ñu daan dajale ci impôt yeeg xaraaj yeeg ak xeeti màng yeeg azaka yeeg ma ak xanima yi muy màng yi ñu daan di dee ca xare yi yi la tëraloon juróomi régal ne état bi na doxee nii bi ci njëkk def ne woon nit ñépp ñoo yem ci kanam loi ku ci ne am na lu la war waaye am nga ay droit amul kenn ku dëgër lu may ku ne ci dëgg amul kenn ku doyadi lu may ku ne ci caaxaan ñaareel ba mu ne digle lu baax tere lu bon ñaari konk la ci ponk yi ni ñuy doxalee nguur gi digle lu baax tere lu bon ñetteel bi mu ne jëf ju rafet ak jikku ju rafet mooy sukkandikuwaayu nguur gi ak yi doxalinam ñeenteel bi mu ne jiyaar ci yoonu yàlla farata la bu ñuy àttee nguur gi du ko bay juróomeel bi mu ne leen xilaafa goo xam ne nag gu la moo mën a doxal mbirum diini ji yi léegi nag li nuy mën a jariñoo ci qissatu Abubakrin Sadiq mooy li ma nar a tënk soo dégloo Abubakrin Sadiq ak fu mu jaar daa ca mën a jariñoo ne kon ndekk ànd ak ànd ak ñu baax ñi ànd ak ñu jub ñi ànd ak ñu ragal yàlla ñi ànd ak ñu jaamukati yàlla yi mën naa jariñ nit ci mu jub benn ngu beneen bi danga ci jëlee ne ndeke tawxiid wéetal yàlla mooy fondement ragal yàlla mooy fondement diine xoolal Babacar ni mu wéetalee yàlla ku toll ni yonent bi di xaritam yàlla di wax muy dégg alquran di wàcc mu dee rek mu ne ko ko doon jaamu kii moom dee na yàlla rek moo fi des mooy tawxiid yàlla rek bu caaxaan fàcce yàlla rek la kon mën ngaa déggee ci Abubakar tawxiid bu mat sëkk jox yàlla biddam daa ci mën a déggee itam ne loolu ñu naan sàngara ak dorog ak xeeti lépp lu ñuy saxaral ak lu ñuy dugal ci ay saddit ak lu ñuy fóon ci bakkan ak lu ñuy naan ci gémmiñ ak te mu yàqam xel mën nga caa dégg ne yooyu yépp yàqute la warees na ko wattandiku ndax wattandiku gi mooy dimbale nit ci mu jub xalaatam itam jub moo tax suñ borom ne fajtani bu ñeenteel bi ci la ñuy jëriñoo ci loolu mën nañu xamee ne ndekay ñeme am njàmbaar ci wax dëgg am njàmbaar ci def dëgg reegal la boo xam ne képp ku bëgg a adme ci li ngay def bu ci ak njàmbaar bokkut pour wax dëgg ak def dëgg booy boo nga xam ne du sotti rawatina woote jëme ci yàlla ak njàmbaar gu mat sëkk rek lay doon amul aw fit tek boo ragalul yàlla doo ñeme waaye boo ragalee yàlla yàlla rek ngay ragal waaye boo ñemee lip lip lépp lépp da nga koy ragal loolu it mooy li nga xam ne mooy doxal daawal islaamiya parce que njàng baax na aw fit koy mottali lenn la modine Euh, kàddu goo xam ne day jàll day day wéy kuy woote jëme ci yàlla bëgg soo waxee nit ñi jël sa wax sa wax na dëggu jóge ci sa xol kon dana rombuy nopp dem ci xol waaye booy wax aw làmmiñ ay fala fala pour nax nit ñi loola ciy nopp rekk la yem du àgg ci xol looy woote daal danga caa war a nekk looy woote danga ciy jiitu soo ci nekkul rekk euh, mbir ma du dëgg beneen ba ñu déggee ci ne ñun ñépp dañuy àndante ñettane ci xam-xam jëriñ ñenn ña ñettane ci am-am jëriñ ñenn ña ñettane cim xel laaye biir ña ca des ñettane cim xel laaye biir ña ca des kon loolu la ñuy déggee ci Abu Bakarin Saddiq gis nga ni mu daan lay biir kon rafet ak jikko ak rafet ak sóobuwaay wa hakada noonu la Abubakarin Sadiq génne àddina ci juróom ñaari fan yoo xam ne moo desoon ci weer wi ñu nekk tey muy jumaadal axira bi mu desee juróom ñaari fan maanaam ñaar fukki fan ya ak euh, ñett Abubakar dund na juróom benn fukket ak ñett comme ni yent bi dundé won juroom benn fukki ak ñett comme ni Omar ibn al-Khattab dundé juroom benn fukki ak ñett khilafa mom mom Abu Bakar ñetti ñaari adla ak ñetti weer ba Abu Bakar génné adina ñu tarik taggé ko bayam Abu Quhafa ci mak mu nga fa ndeysaan mu jooy jooy yu metti metti Abu Bakar nag bu mu génnee àddina soxnaam suñu asma Asmaa bintu Umaysin moo sang ñu suul ko ci wetu yonent bi ci néeg Aïcha radiallahu anhu ci même guddi gëmu faatoo balaa bata set lañ ko denc ci wetu yonent bi alayhi salatu salaam nii la nii la bàyyam it faatoo maanaa ba Babacar faatoo juróom-benn weer lañ ca teg bàyyam Abu Qaafa door a faatu nag Omar ibnul Xataab taxaw ak Ousmane ak Aliyu ak Aïcha ñu daal di waar nit ñi keroog Aïcha mooy doomu Babacar daf ne yan yàlla na tëxal ak kanam ak Babacar euh, Babacar ñoo ngi lay sant cant ñeel na la ñu ngi lay gërëm ndax itam ku yiw nga jëf nga jëf gi yiw yow day bi nga nekkee ci àddina ku daan toroxlu nga bi nga nekkee ci àddina ku daan suufeelu nga àllaaxira nag yang nga fay jëm ñu yaakaar nga nekk ci ku ñu teral ndax jublu gi nga jublu àllaaxira kon Aïcha ne illa lil inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne loolu noonu la Aïcha bintu Abi Bakrin wax gannaaw baayam wax ji ma wax nag ci Abu Bakar maraaji yi nga xam ne ci laa ko jëlee mooy alxulafaw rachidun ki ko taalif mooy Mouhamed Saad Atlas wala téere bu tudd al firaqul islamiya كيكون بين موي الغزالي غزالي منداومي بنبي نبي موي طريق الطبري بنبي نبي موي فايد العمري بنبي نبي موي رياض نضرة بنبي نبي الإصابة في تراجم الصحابة بنبي نبي موي تاريخ الخميس بنبي مقدمة ابن خلدون بنبي نبي الاستيعاب في معرفة أصحاب ابن عبد البر موك التالف والسلام عليكم برهام باء وراء ألف ثم هاء